garab gii moo tudd àndala buri àndala buri ñu ngi ko defaree juróom-ñeenti reen ak i meññet li ci gën a ràññeeku mooy ngeeraan mu ci ñoñana mu ci bitakoola mu ngi ci jinjar mu ngi ci laaj mu ngi ci ak yeneen ndax doo defar sa garab toog ci tele bi wax lañ ca def lépp boisson yi ñuy naan musuñ ñoo wax liñ ko defaree te ñu ngi koy naan àndala buri bii nag dafay raxas deret ba mu set dafay raxas biir dafay yóbbu fatiguement dafay leeral bët yu leerut dafay faj sinusite ak allergie yii nag su génnee ci góor daf lay permettre nga mun a koddal bu baax te sooy séq ak jigéen doo gaaw a daanu moom ku ko naan moom gën cee gàtt moom ñaari waxtu yi di nga ko tëdd ak jigéen li ci gën a yéeme nag mooy boo paree doo yëg coono dana la lekkloo dana la nelawloo nit mën na koo naani tamit te fekk ne jëfandikoo ak jigéen da nga bugg a raxas sa biir ñetti butéel yi foo ko naanee mu dagg sa émorite dootoo ko amati ndax xam-xam bii ñun defaruñ ko ñu nekk Cameroun nigeria Côte d'Ivoire Gambie ñoo dajaloo di defar lii di ci liggéey ak ay tubaab den koy kaste boo ko dajee di nga gis benn lu mel ni kubéer ci biir pour wan la ne lii àndala la moom leen koy defaree ni ñu ngi ko tuddee suñ maam àndala buri fadilatu imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé moo ñu jox tur bi bari na ñu koy jaay di defar affichage bi te fekk baaxut ñoom ba ñuy jaay baaxut li ko waral nag mooy lépp lu baax rek am na pirate bii mooy àndala buri dafay laaj nga xam fan leen ko war a jaayee ak kan moo ko war a jaay ngir nga bañ a jënd bu bon bi jigéen du ko naan àndala buri jigéen du ko naan du pour jigéen àndala bii nga gis nag du puudar du sunguf ndox la moom defar neen ko ba pare képp ku koy jënd leen lay wax nan leen koy naanee ban heure nga ko war a naan ak noo ko war a defee man Cheikh Ahmed Cissé maa indi àndala buri maa moom tur bi jëlee ko ci suma sëriñ maa xam fañ koy jëlee di ko indi bari na ñu koy joxe ci dëkk bi ku ko jëlewul ci ñun amut bu baax bi te li gën a yéeme ci àndala mooy sa xaalis soo jëndee àndala yaa ko moom biñ koy indi ci réew mi nit ñi mën neen ci seede den la koy jox ba nga gis ko nga fay ko képp ku jënd ci ñun àndala buri fa nga ko war a jëndee boo ci gisul lu la neex tëjaatal butéel bi indi ko ñu delloo la sa butéel liñ wax ne dafay faj allergie sinusite sibiru fatiguement biir raxas sa biir te du daw sa biir eh, génnee raxas yemale suukar ak xorom liñ wax nii yépp ci garab gi ku ko naan ci yii wala émérite gisoo ko sax xaalis yaa ko moom te wax ne ne ku ko naan di nga koddal ñaari waxtu dinga nga laalante ba doyal ba ki nga ko séqal moom mooy sonn waaye yow doo sonn lii yëpp ku ko ci gisut yow yaa moomaat sa xaalis da nga génne delloo si butéel bi lang ca naan baal neen la ko ñun noonu la ñuy jaayee ànd la keneen ku jënd ci keneen nag wala feneen amewuñ ci responsabilité bii nag moo yëngal réew mi bii mooy bazooka basuka fetal bu ñuy xeexee la ci soldaar yi moom poudre bu nooy la comme karité la mel bii pour guddal ak réyal doo ko naan koy massage ñetti minit ba juróomi minute suba ak ngoon doo sol silip boo bëggee nag mu em ni la neex ñaar fukki fan ak benn doo sëy ak jigéen waaye booy sëy ak jigéen ci biir di ci diir boobu danga koy utilise ba pot bi jeex dina gudd dina rëy naturel la nag amut lor ni la yàlla bindee rek noonu la koy xàccee ba mu em noonu doo gàtt mu guddal ko ba nga xam ne da koy téyeeg sa ñeenti loxo déedéet maanaam daal soo koy utiliser di nga jàpp jàppaat bopp bi nekk ca kaw loolu mooy normal noonu la koy yemal lii nag mooy basuka ñoo koy dugal ci réew mi bari na nag ñu koy tuddee basuka waaye ñun suñ bos ku ko jëfandikoo ñaar fukki fan ak benn nga ñëw nga ne ñu yokku réyut delloo silpot bi nga jot sax yàlla buggut bàkkaar lu xaraam bëggul riba kàddu yi nga xam ne maa ngi koy utiliser nag lépp sooy wax ak doomi aadama yi utiliser langue universelle boo xam ne ku ko dégg di nga xam li nga war a wax moo tax ñu utiliser baat yooyu waaye yonentu wax na ne alhayaau laa yaati illaa bi xayri mu ne kersa du la indi lu mooy yiw waaye moom yonentu moo ñu jàngal i tamit ne kuy wax ak doomi aadama yi waxal ak ñoom ñu mën a dégg comme damay jaay bazooka poudre la naturel la pour cent la dinañ leen jox numéro yi affichage yi ku ci woote danañ la jaarale fa nga war a jaar ba am ko te boo ci gisee leneen tam danañ la delloo sa xaalis te li moo gën a wóor ndax télé Dakar télé bu mag la àdduna bi yëpp xam neen ko duñ tappale duñ fen duñ dimbale koy tappale wala koy fen ñun nag ñëwuñ ne mën nañoo faj dara fajuñ dara garab yu baax la ñu jandi ko indi ko di ko jaay duñ musa toog ci tele ne mën neen nangam ñëw leen waaye den jënd di jaay comme ni ñuy publicité jumbo di ko publicité mburu noonu leen ko defee rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.